xarit dalay xaralas la ci yëfam la doo waayam sëriñ dalay jariñes laf yar la yor la euh, bokk yi nga xam ne yéen ñu bokk di ñu déglu auditeurs yi ak auditrices yi muy déglukat yu yi yu yi ñu ngi deetuwaat fii ci barab bii di leen nuyuwaat nañ leen daan nuyoo di leen siyaare waat nañ leen daan siyaare di leen ñaanal jàmm ak salaam nañ koo daan defal tey sàkku yi ngeen di ñu ñaanal jàmm nañ ko daan sàkkoo yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te fu ko def mu doy parce que yàlla nañu yàlla boole defal jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaye ni ñu koy faral di defaree tàmbalee suñu nuyoo. ak suñu siyaar ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Xaadimu Rasuul ci Ahmadul Xaadim ñu ngi tàmbalee ci moom suñu nuyoo ak suñu siyaar di ko ñaanal jàmm ak salaam ndax baa na jàmm rek ñu am jàmm yal na ko yàlla sàmm te sàmmal ko ak tam yal na ko yàlla yàggal ak bokki boppam yi ma àndal fas yéene jafe liggéeyub sëriñ bi yal na leen yàlla boole ñu ànd lu yàgg yàgg yàgg te fu ñu rek yal na yàlla di gën di not bokk ñuy gën di amul nangu ci gunge ko rek ci ab liggéeyam moom it ni ko nu mu ko bëggee rek yal na ko ko yàlla defare mel ni li bëgg ci sëriñ bi lépp yàlla na ko ko yàlla may waaye li bi bëgg ci moom lépp yàlla na ko yàlla may sëriñ bi kon ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem njabootu xaadima soo te Ahmadul Xaadim muy sët yi ak doom yi ak jarbaar yi ak dongo yi ak sëti seex yi fi nekk ak doom yi seex yi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu tey ànd ku baax ki ci liggéey bi waaye ñu ngi nuyu it ma maam Serigne Serigne maam maam maam maam Serigne Cheikh Jëmbu Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima làmp yoon bi li nga xam ne moom lépp Bamba waaye moom moo tax ñu xam ne lépp Bamba kenn ku ne xam ne lépp sëriñ bi la waaye maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ki ñu xamal ba ñu xam ne sëriñ bi la ba ñëpp daw ñëw kon maam bi Ibrahima Fall moomu ñu ngi nuyu kootaayam lii nga xam ne moo ko fi defal tey aussi la ànd rek Cheikh Mamadou Mountakha xam ne maam na la maam ak Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadoul waaw bu mel ni ñoom ñaar kenn ku ci nekk teg nga sa tànk ca fa ka nga wóotu tegoon tànkam ndax xaadima soo Seex Ahmadu Xaadim tegutoon ab tànkam lu ci yoonu yàlla lu yàlla bëgg loolaa ko ñor lu mu bëggu ñoru ko moom la dama si doxee Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mii kenn ku nekk xam ne boobu la teg ab tànkam waaye maam Cheikh Ibrahima Fall yi nekkee wutoon lu lu sëñ Bamba digal digle mu def lu mu diglewul amul soxla waaye xam nañ ne sëñ Cheikh Jëmb Fall mii foofu la tegam tàngam lu lu lu lu Cheikh Mamadou mu taxaat diggee mu def ko lu mu diggul am ci soxla waaye dañuy faral wax ne ne wax neexul ñu ne dégg moo neex waaye ñu ne waxee nag ak déggin su ma ne luñ diggewul amul ci soxla nangam nangam maanaam ñoom dañu dul diggee dañoo dañoo Ibrahima Fall maam maam Cheikh Ahmadul Xadim Xaadimu Rasuul mësta diggee digle lenn lu yàlla digle lu yàlla diglewul amul sa soxla maam Cheikh Ibrahima xamoon loolu ci Xaadimu Rasuul xam ne ndigalal yàlla képp la koy jox mu topp ko lu ko sëriñ bi digal mu xam ne yàllaa ko digle lu ko sëriñ bi digalul amul sa xam ne du du du yàlla te yàlla diglewul amul sa amul soxla loolu mooy wax bi kon ñu ngi nuyu mboolem mbooleem ahlu lislaam bépp nag waa kër maam Alaaji Malick Sy waa kër maam Abdoulahi Niass ca Kaolack waa kër maam Limaamu Laay waa kër maam Bou Kounta Ndiassane waa kër sëñ Ahmad Dem bu Sokone waa kër maam Ousmane Baro ca Thiès waa kër maam Thiénaba waa kër sëñ Thiénaba ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn bépp kilifa lislaam bu fi ma sa taxaw rek ñu ngi lay siyaare de ko jaar si njaboot gi nga xam ne ñoom nga fi bàyyi di ñaanal njaboot yëpp yal neen yàlla taxaw ba kenn ku nekk yéen ja nga am ci sa kër maam ci sa liggéeyu maam ba mu bàyyoon nga mën koo doxal yàlla mën na ko leen ko yàlla dem kon ñu ñëw nag ak xibaar fii kër gi nga xam ne fii ñu nekk di ma Médias mu nekk fii ci Mbàkke Baol ci boru tablita bi ca xàlloo mag bi nga xam ne mooy dëgg ma dëkk bu mag ba te ma ju mag ja te sëriñ bu mag ba xaadimu rasul si Ahmadul Xaadim ñu nuyu waa kër gi yëpp jiital si kër gi moom itam ci nuyoo bi sëriñ Mahamadou Diop cat mi nga xam ne mooy njiital kër gi moom la dëgg yàlla sama njiit lool nag waaye tooyu laa biir lool sawar yaatu wax dëgg yàlla loolu lépp ak ci moom wallaahi man du ma jay nit loolu laa gis ci moom yal na ko yàlla taxaw ba li mu bëgg yéen ji mu am yàlla yàlla jàppale ko ci xam naa ni ku bëgg bawal la it ku bëgg xaadimu rasul si Ahmadul Xaadim la man caatu mbawal laa ko tuddee waaye nag caata mbawal laa ko tuddee ñu ngi nuyu itam boo déggee ma ne caatu mbawal it mooy damaa xam bëgg gi mu bëgg bawal ak bëgg gi mu bëgg Serigne Touba waaw ku doom ju baax bëgg ko waaw daa bëgg bawal mu bëgg ko bawal la ñu am di nuyu soxna war xam faal nga xam ne moo sos ci moom waaye fàttewu ñu it nag bàyyi Cheikh Gaye di jàll duñu fàtte it Ibrahima Khalil Diop ak Serigne Moustapha Thiam Cheikh Mohamed Faye Mohamed Niang bu bu bu bu ndindi bàyyiwuñ kenn ñu ngi nuyu ñëpp ak ndeysaan samay jamono yi rek baa ngi fay may nuyoo leen ñoom ak xale yu ndaw yooyu yu baax yooyee nga xam ne ñoo fa daje aussi ne ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi ñoom ñëpp yal leen yàlla boole jàppale ci darajay Seydina Mohamed maa ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk la nga bëgg yàlla na nga am lu ko raw la nga def sam xel ne amaana la mën a am yàlla na yàlla jox lu ko raw ci darajay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Xadim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla waaw mu mel ni nag kon xanaa li ñuy def rek mooy ñu bàyyi technicien bi xel tuuti te daal di euh, dellusiwaat ci waxtaan bi waaw mu mel ni ni ma koy waxee rek émission bi dafa jëm ci gànjaru xel alam noonu la émission bi tudd kon yaakaar naa lu mel noonu lañ fi war a waxtaane gànjaru xel xaram gii nag mu mel ni fa yàlla dafa def ku jàll mayoon kàddu ci wax ba ñu wax na sax daanañ wax ne ku baax ki daana wax ne moom sama làmmiñ lay waxe muy sëñ Mbay Jaxate yàlla dafa ko defoon mu mu defoon mu defoon way woo xam ne ci loolu rek la jëmoon boo ko dégloo ci xel rek la doon wax ci xel kon foofee taalif boobu ku ko déglu baax da nga xam ne kon xel gànjaram xalam la da ngay wax bu baax sëñ Mbay Jaxatee wax sëñ bay jaxate moo ne kar yaa ngi di topp ndigal jën yaa ngi di topp ndigal per yaa ngi di topp ndigal yow mii di gis di gis loolu mu ne xalamal xalamal ngay xalam la xalam mooy génne njariñul xel xel su te borom dul xalam amul njariñ xer mel na ni xam naa am na ñu ko xam ci gone yi ak ñu ko xamul waaye mag ñu amaana xam ne ko waaye boo demee ci dëkk yi àll yi daal ñaare da gis ñoom ay sàkket mooy wër kër gi sàkket yooyu yi nga xam ne ñooy wër kër gi bant yi ñuy samp takk ci sàkket yi ba sàkket yu daanu bant yooyu ma tudd ay xeer mu ne kon xeer yooyu ñoom ñu ngi topp ndigal ndax ñu ngi samp fi ñu leen samp ñu fab sàkket yëpp takk ko ci seen kaw ñu nekk fa guddi ak bëccëg naaj wi tàng sedd bu liw ak lépp ñoom ñaxat ne sàng faj ne sàng ñu fab xer yi ñu fab sàkkee yi wéer ci seen kaw takk ko mu dëgër bu ngelaw ñëwee ñoom ñooy teye sàkkee yi ba sàkkee yi ñu jàng loolu lañ leen sant ñoom ñaxat kon ñoom yooyu topp ndigal ñoom xer yooyu te ay bant nag rek yuñ daggee ci àll ba indi dañ bay jaxatee wax de mu daal ne gën yaa gii di topp ndigal ana lan mooy jën yi mooy bu njëkk kër kilifa goo ma saan dem néeg bu baax nga fay fekk bu rafet ak mbaar mu mbaar mu baax mu rafet mbaar ma ay jëne ko daan yanu néeg ba ay jëne ko daan yanu mu mel ni li ñuy wax tey ay kenu yaakaar na ay kenu ko xool ay poto poto yi ndax léegi tey daanaka kuy mbaar ay poto ngay wut poto yooyu wala wala nga kuule poto yi tabax waaye bu njëkk nag boobu loolu amul boobu ay jën amoon jën yiir wala jënu wen jëni ngéejaan ak jën yàlla mbaañ yépp lu ci ne amoon daana am jën boo xam ne bant lay noonu doon noonu bu ànd ak pàqam nga dakk muy muy muy bant bu digg nag bu rafet ci jën yooyu maax noo ko mënoon ñoo mënoon jënu nekk waaye laa garab boo xam ne ci garab yooyu maax lu demee ni yiir gu wow wala wen gu waw wala ngéejaan gu wow ñu wala wala jalbaat googu ñu dagg ko daane ko xar ko yettal ko yu mel ni ay pàq te tege loolu ngaa wax jëru xar yu mel noonu lañ daan samp teg ci néeg bi mu yàgg ko wala ñu teg ci mbaar yi moom ay diggutu bu ko defee néeg yu magee ñaare da nga gis bu amee ay diggutoom ay ay diggutoom nga xam ne diggante ñaari koñ ñu dañ fa sampaat aw jën ci digg ba nga xam ne boobu bu ko defee day mel ni néeg bi juróom-ñetti jën day am bu dee néegub taat koñ wéet bu dee waaye nag mën naa doon ab kaat koñ ba noppi te nekkub taat mètre bu ko defee dee ba ci kaw néew am doole day diis bu ko defee ñaar dañ daan daaj ab benn bant fa xaw a toolu put ba mu jàpp ca gaay gee jàpp ca gaay bee ñu fab samp jën wu rëy ci digg néeg bi mu dem ba àgg foofu mu gudd mu yanu foofu loolu lañ daan wax aw kenn nga xam ne bu néeg bi tey bu daan ba ngelaw yëngal ko mu war a daan it jën woowee moo ko tey ba àgg suuf mooy aw kenn kon loolu mooy jën dama bëggoon mu leer rek baax bopp loolu mooy aw jën loolee yooyee mooy aw jën ya daan yanu kon nee na xel yaa ngi topp ndigal jën yaa ngi topp ndigal kon loolu mooy jën yi mu dal ne per yi ñu ngi topp ndigal per yi mooy lan mooy sàkket yi nga xam ne moom la ñu defar mu wër néeg bi ub néeg bi ba nit ki mën dugg ci néeg bi suturlu ci man faa dugg nopp mën faa def lu ne te kenn koy néeg bi néeg boo ko dégloo ci baatu ci baatu olof néeg mooy ab néggandiku fu ñuy néggandikoo la rek demal si néggandikukaay bi yaa xam ay nelaw nga fay néggandiku yaa xam moom noflaay nga fay néggandiku dem nga ba dem fa tëdd di fa xaar nelaw wala wala xaar noppalu néggandiku googee nga fa tëdd di xaar loolee nga fay xaar moo waral ñu néeg boo mu nag ay part la daan am bu dee li wër kër gi daal wax ay sàkket waaye bu dee lii wër néeg bi moom la daan wax ay per ñaare at lañ ko daan defare wala selen moo ci ëppoon wala gattax gu rafet boo te jamono yooyu na sax gattaxu kaañoo gi daan taam mu ne la xel yaa ngi topp ndigal jën yaa ngi topp ndigal mu ne per yi ñu ngi nii di topp ndigal kon xel yaa ngi topp ndigal jën yi dibante leen ci dagge ci àll ba ñoom itam ñoo xel yi moom yëpp ñu ngi topp ndigal per yi di xaj ba ak gattax ga ak seleen ba ñu boole ko rabb ko taxawal ko bëgg mu uur néeg bi ba nit man fay dugg ba ngelaw du ko sonal lu mu lu mu bëgg a def sutura man ko fay def kar yooyee lañ ko kar lañ leen sant ñoom it ñaxete mu ne ko yow mii di gis lii yépp nag yow xalamal xalamal nag waaw mel ni yow boo ñëwee boo boo ñëwee dugg ci néeg bi rek jaaxaante di neew amoo soxla ci waxtu amoo soxla ci lii waaw doo fa def lu jub doo ko fa wax waaw lu lu lu ne yow daal sa bakkanu bopp rek waaye li yow daal ñii moom jox nga leen ndigal ñu ngi koy waaye yow daal leen sa borom jox ndigal yi ma jox jéemoo ci daal moo tax sañ bay jaaxate da wax ne ginnaaw yaa ngi gis ñii ñëpp ñu topp ci ndigal moo tee ngaa xalam njawit xalam ak xalaat nag dañoo xaw a nuroo te xaw a wuute waaw xalaat mën ngaa toog ba mu yàgg rek nga xalaat nga ne waaw man bant bi ndax su ma ko daggoon samp ko bant bee tekki ndax kon dinaa mën a fexe ba def suñu joowaan gu may joowoo gu may toog toogaay bu neex fekk ma soo koo gisee loolu mooy xalaat xalam nag moom mooy ki ñëw fekk bant boobu ñu defar ko defar njowaan gi àgg mu ñëw taxaw xool njowaan gi ne waaw lii yéeme na de toog di xalam lii naka lañ def ba def ko di seet naka lañ def ba def ko ak nag moom naka la war def ba def ko ëllëg loolu mooy xalam waaw te nday jaxate jóge ca newaat lal baa ngi di topp ndigal daal ne néeg baa ngi di topp ndigal kër gaa ngi di topp ndigal yeewul te topp ndigal mu ni lal bi nga tëdd nga samp ko tëdd ci teg ci place def ci lépp di ci tëdd gudd ñoo neex wëlbatikoo loo neex def ci kaw lal bi ba asamaan set te taxul mu jóg deful dara lenn defu ko daf ne dégg fi ñu degg rek yow daa foo boo ñëwee fekk ko fi boo agsee loo ko teg mu tegoo waaye néeg bi itam mu ngi topp ndigal de mooy néeg bi ñu daaj ba aj ko ca kaw xadd ko defal ko yépp ngir mu dox sa diggante ak taw bi nga xam ne foofu sax wax fi dañ koy dañ ko fi faral wax naa la ba xadd yi bëreeg taw ba xadd di bëri ak taw ba activité sa kaw yow booba yaa ngi ñëw wala booba yëgoo ko bu ko bëgg tëdd foofu mu mel ni mu bëgg a taw wala muy wala muy wala muy ngelaw wala muy def la xadd boobee di bëree ndox ma ba ndox ma doo ak si kaw ndox ma ak si jaar si kaw mu sànni ko ci biti ba yow dara doo sooy yow nga tëdd fi nga tëdd di nelaw boo dee ko bari nelaw ni man kon xam nga ne bu mu ngi topp ndigal mu ne waaye kër gi mu ngi topp ndigal de lan kër gi moom xamee nga ko mooy teere bi ginnaaw boo ko amee wu noppi fu ne nga gas fa samp fu ne fee nga gas fa def fa mbaal fee nga gas fa yee fay xal fee nga fa def sango fee nga gas fa def fa wanag bu mag bu ñuy demee ajut lu ne yaa ngi koy def ci pàkkub kër gi kër gi bañu ci lenn foo samp foo gas pour samp bat mu mu mu nangu booy gas mu nangu boo sampee mu téye lu ne yaa ngi koy def ci kër gi lu ne taal fii deppee deppee lu ne yaa ngi koy kër gi kër gi moom ne degg rek deful dara kon kër gi moom mi ngi topp ndigal li nga fi bëgg yëpp yaa ngi koy am mi ngi la te yaa ko jox ndigal yow seen day jaxate kon ginnaaw loolu baa ngi topp ndigal nii di topp ndigal kër gaa ngi di topp ndigal daaneel yeewul te topp ndigal comme bu dee dangay nelaw it nag yeewu jot na ginnaaw lii yëpp yaa ngi ko gis gisoon nga xer bi muy topp ndigal nga jàkkaaloo jën yi muy topp ndigal nga jàkkaaloo per yi ñuy topp ndigal mu ne yow mi diis xalamal xalama goo ba tey kon mu ne la lal baa ngi di topp ndigal nee baa ngi di topp ndigal kër gaa di topp ndigal yeewul te topp kon fekkee ne gisoon nga xel mu topp nga gis jën gis per yi te taxul yow nga topp ndigal daa mel ni yow kon dangay nelaw mais yow mi di gis xalamal waaye ba tey xalamoo pour jéem a topp ndigal kon daa mel ni léegi dangay nelaw moo tax mu ne la lal baa ngi topp ndigal nee baa ngi di topp ndigal kër gaa ngi di topp ndigal yeewul te topp ndigal kon booy doon neew yeewul nag topp ndigal topp ndigal jar na de <laughs> sëñ bay jaxate mu daan ne jox nga jën yile ab yan yàlla jox na la yan boo sàgganee nag jën yi ngay gis gën la waa ji yanoon waaw mu ne yow jox nga jën yi ab yan waaye jën yi ginnaaw boo leen joxee ab yam gis nga ko li ñu yanu ñoo yanu néeg bi yanu mbaar yi ak leneen leneen mu ne ginnaaw boo joxee jën yi ab yan nag na xam ne yow yàlla jox na ab yan de yaa yow it xam na yow jox nga jën yi la ab yàlla jox na la yan mu ne waaye boo sàgganee jën yi ngay gis jën gën la waa ji yanoon waaw ndax jën yi ñoom ñu ci ndigal li nga leen li leen jox ñu ngi ci ndigal li nga leen jox te yow ki jox ndigal faale ko te moonte loo sañ ci jël yi nga joxub joxub yan yàlla moom moo sañ ci yow lu ëpp loola te jën yi bi nga leen joxee ndigal ñoom dañoo yanu dañ koo def bi nga leen joxee yan bi dañ koo yanu waaye yow yàlla dinaa jox sab yan nga lànk bañ koo yanu kon kay léegi jën wi gën gën la demee boo ko dee seet day mel ni daanaka xar na medd ñu sànni ko xal ma dee sa tabaski ak tu ak tudd xam nga ne duñ duñ duñ bokk ëllëg abattuwaay ah loolu laa jàpp sama xalaat damay xalam samay xalam fa àgg nag waaye wax yu ma xam-xam damaa xama xalaam xalam rek boroom xam-xam bi ñu ko déggee ni ma ci dimbale xar mi xar mi jékki-jékki rek xëy ñu fekk ko mu deel ñu sànni ko ci ci nax ma waaw ndax mën naa yam ëllëg ak xar mi nga xam ne moom dañ ko rendi ci tabaski ga wala ñu lay ko ci tudde ko doom ju ju baax far doom ju judd màgg doon jaamukatu yàlla bu mag wala ñu tudd ko ci wala ñu rendi ko ci màggalu jëmm ju sell joo xam ne jaamu yàlla fi nekkoon bu xëy dem ñu rendi ko ca bisam boobee ndax mën nañu yem ak xal mi xal mi nga xëy rek fekk mu wedd nga fab sànni si àll ba kon doomu aadama bi li muy gën gën gën gën gën bant bi gën lu moom ah yaakaar dañ laa waxoon ne doomu aadama moo mën a defar boppam bëggan lu ne waaye moo mën a sàggari boppam ba yeesu ne kon kii nag moom kii sëñ bay jaxatee waxal moom daa mel ni daa nekk ci sàggari boppam kon mën naa dem ba lu ne gën ko kon mën naa dem ba jën yi gën ko moo tax mu ne yow jox nga jën yi la ab yan yàlla jox na la yan boo sàgganee jën yi ngay gis gën la waa ji yanul mu ne jën yaa ngi nii yenu seen ab yan te yow yenu woo waaw jën yaa ngi nii yenu seen ab yan yan ku leen ko jox yow te yow yenu woo yow kan moo jox yan yàlla mun ne jën yaa ngi nii yenu seen ab yan te yow yenu woo sa yan bi lay sëppe ay waarul jalul xalamal waaw nee jën yaa ngi nii yenu seen ab yan te yow yaa ngi lànk yanuwul nga yanuloo seen baa ngi ni sëppee nga lànk bañ koo yanu mu ne ay waa ji de waa ji waarul yow mii war ngaa waaru nag waa ji jëlul waa ji xalabal waaru moom ku ne xam na ko te soo waaruwul jalul jalul mooy mel ni tey u gaynde tiitaloon rek mu ne bëri lem ci day bi ne bëri bëri bëri daw yaa def mu àgg fi bal bi ne fa dara day nga xamatu fu mu jaar ba mu ne dara di yàgg mu ne ëy man day tey jii xaw ma lu ma jóg yàlla rek ma ëy yooyu muy wax ci dënd bi jëli ko ci dënd bi loolu mooy jelu lii jaar na jelu lii jaar na jelu de jën yanu yan bu ne leen yanu loo yow yàlla yanu loola nga lànk bàyyi sa benn mu soppi jar na jar na waaru jar na jëlu jar na yëf xalam nag mun a xalamal seetaatal bu baax li ngay def ak lan moo ci war a mën a waaw seetal bu baax li ngay def ak lan moo di ci war a mën a fekk ëllëg kon ci foofu xam na ah mel na ni waxtu bi mu ngi bëgg a jege ci waaye ñu nuyoo ak soppe yi am di jàmm yi waaw euh, ku mel ni Serigne Cheikh Bamba fii ci pencum ci ak Njaay Cheikh Bamba Loum ñu ngi koy siyaar baax di siyaar yi Serigne ñu ngi koy siyaar baax moom it di siyaar yi Serigne Thiatou Ndiaye chef de village Touba Diarème waaye di siyaare Baye Xaban Dieng ak sëñ Modou Guèye ma nga xam ne moo fa nekk di délégué quartier ba mu ngi leen di siyaare ñoom ñëpp di leen jàmm ak salaam siyaare di sëñ Abdou sëñ Abdou Lahat Saaw fii ci suñu wet di siyaare ñëpp ah, di siyaare waa kër maam maam aslu maam maam maam attakoura Mbàkke waaye ñu ngi siyaare suñu xarit nag suñu soppee Serigne Namor Mbàkke ñu gën koo xam si jàmm Serigne Touba moom koy siyaar bu baax Serigne Namor Mbàkke doomu Serigne Cheikh soxna ab sa sëy di siyaare xalifa mi Serigne Moussa Mbàkke nekk fee ci Poroxaan waaye di siyaare mu wari Mbàkke maam Serigne Moussa Mbàkke Poroxaan ak kër Serigne Modou Bil kër Serigne Modou Abdoulaye ak ñun ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di siyaare mboolem waa kër Mamadou Faty Mbacké di siyaare sëriñ Alaaji Mbacké waaye di siyaare yéen nag euh, sëriñ Modou Mbacké di rakk ci sëriñ Cheikh Soxna Maram Dieye doomi soxna Gaas Ñaŋ di siyaare yéen nag sëriñ Fallou Mbacké ba tey xalifa Duro ñu ngi koy siyaare baax ak soxna Daba moom sëriñ Sam Duro di siyaar yi soxna su Mbàkke Baay Faalu maam Jaara moom Sëriñ Sam Duró waaw doomi Sëriñ Sam Duró taalibab Sëriñ Mustafaa Sëriñ Basiru moom day sama mooy day sama kilifa ñaari yoon day sama sang ci wàllu aada ndax waay juróom lay sama nijaay waay juróom ak sama waay jur ñoo bokk benn waay jur góor ba nopp wóol bati ko waay di soxna sama sëriñ ñu bokk nekk Daaru Minam Saalum 1968 jëm 69 mu gàddul ma sama mbalaanum sangu mi at mu jot mu di ma jox xam ne jaamam laa mu dama ko mu dama sange loolu kooku sama kilifa rek ci boor bu ne ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp kon ki leen nekkoon doon ci fi ñuy àddoo ci fi ñuy wax ci waxukaay bi di àddu ngeen di dégg mooy Basiru Sekk ndongo daal bi nam dimbal ak yéen ma ne saahir ak baatin fan wu gudd waa ànd ak wér gu yaram liggéey ba ànd barke jaamu yàlla gu ànd ak ku nangu waxfir lanaa wa aafinaa bi aafiya takkoon fi daal leen xëy aafiya xarit dalay xarales la ci yëfal ni la am koo ni kii xaras laf may la doo waayam sëriñ dalay jariñes la yar la yor la bu wér xamal la yàlla nga def samtam di ab jaar